alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki euh, Evidence TV noo ngi leen di nuyu seen émission islam et société nag dafa génn tey kaadr bi mu nekkoon ci euh, rubrique bu bees boo xam ni ñu ngi ko euh, jagleel ëttu xam-xam ëttu xam-xam nag fan la ñu jagal tey mi ngi jabal fii ci Castor ñëw seet si benn borom xam-xam muy imam Mouhamadul Kabir Gueye di imam ratib bu juma El Hadj nekk fii ci Castor euh, ñu ñëw nag tey ci euh, benn sujet benn mawduux bu am solo boo xam ne ñu ngi ko dippee la zakat zakat nag moom la ñuy fal asaka au Sénégal euh, ku ne xam nañu nag lu xaw a tumuranke la xëy na nag ñàkk dégg ak yu looloo tax nag tey ñu ñëw fii seet si imaam Mouhamadou Kabir Gueye ci mu indi ñu loolu nga xam ne mooy zakat lan la ak lu ci yàlla wax ak nan ko woon kër génnee Euh, ak itam euh, ñàkk koo génne euh, yan conséquence la mën a jural ki nga xam ne moo ko bañ génne waaye itam askan wi itam amaana ñu loolu ci kon mbokk yaa fàttali imaam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi lay nuyu bu baax jaar ci yow nag nuyu waa Evidence TV yëpp waaye jaar ci waa Evidence TV. nuyu mbokku àdduna bi yëpp ndax ñi ngi sax ci at mu bees mi muy weeru muharram di weer bi nga xam ni moo jiitu ci weeru jullit yi ñu ndokkeel leen ci bu baax a baax baalu leen ak ñaan at mi nga xam ni moom lañu génne lépp loo xam ni jaamu nañ ko ci ci yàlla yal na ko yàlla nangu lépp loo xam ne am nañ ko ci ay rëcc rëcc yal nañ ko yàlla jéggal waaye at mu bees mi itam mébét yu baax yi nga xam ni yëpp am nañ ko eh, yal na ko yàlla mottali barkeel suñu njaboot yëpp ah laaj bi nga laaj nag muy wàllu asaka asaka lu am solo la ci diine lislaam ndax suñ ko xoolee ginnaaw boo xamee ni gëm yàlla weesu na eh, julli weesu asaka mooy ñetteelu position nga xam ni lislaam am na juróomi pilier ñetteel bi mooy lislaam muy ponk bu rëy nga xam ni sax boo xoolee alxuraan premier aaya yi jëkk a wàcc bu yàlla waxee ne alif laam miim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin nga xam ne aaya boobu sax dafa présenté rek livre bi wane ni alxuraan moom mooy livre livre bi nga xam ni mooy lépp julliti yàlla ni fi dëndil mu muttaqin lépp lu ñu bëgg ci njub ci àdduna ak alaaxira mi ngi ci ci ñi nga xam ne nag jullit yuy topp li yàlla wax bàyyi lim tere te ñooñu ñooy allazina yuminuuna bil xayb mooy ñi nga xam ni dañoo gëm lu ñu gisul gëm lu ñu gisul mooy gëm nañu alaaxira ci gàttal waaye gis nga yàlla def ni te ñuy wayu na salaata ñuy saxal julli yi wa mimma razaqnahum yunfiqoona moo ñuy dugal ci asaka nga xam ni yàlla na ne li ma leen wërsëgal dinañ ci jël di ci joxe asaka kon premier aaya yi rek asaka ñëw na mu nekk kon loo xam ne lii lu lislaam fonk la euh, sarxe moom dañoo ko bëgg ci nit mu di ko def mooy dimbalante ngay ku mën sa dimbali sa morom nga dimbali ko te yàlla tax waaye asaka nag moom lu ñu forcé jullit bi la su fekkee ni conditions yi daje na ci moom kooku moom yàlla négocier si yeewu si ñëpp ñi nga xam ni ñi am nañu lu war ci ñoom ñu génne asaka bu doon ci jamono prophète bi gis nañ ñi nga xam ni noonu lañ ci daan taxawee di ko génne yonent bi di yeble fu ñu war a génne asaka ne moo xam asaka mbay la moo xam asaka jur la moo xam leneen la day am ñoo xam ne ñi ñoom lañuy ñuy ñuy dem di ko indi di ko dajale loolu sax yóbbee na Aboubacar Sadiq bi nga xamee ni jël na xilaafa gi am ñoo xam ne ñi ñoom jamono yonent bi dañ daan joxe asaka mais comme yonent bi génne na àdduna rek ñu daal di bëgg téye seen loxo Aboubacar dafa daal di takk lu xare ni loolu moom du ci ñoo ñu daan joxe ad asaka ci jamono yonent bi asaka ji dañ koy joxe walla mu xaree ak ñoom waaye bu mu jëlee décision boobu it gis nañ ni saaba yi dañ ci ànd te saaba yi ñu dugg woon lañu ñu xam ni su fekkoon décision boobu Aboubacar jël dëppoowul ak euh, njàngale yonante bi wala li lislaam gis-gisu lislaam saaba yi duñ ci ànd kon loo xam ni day laaj ñuy takk xare sax bu ko laajee kon lu am importance la ci lislaam waaw que yàlla dafa wax ni xam nga ñun dañu gëm àllaaxira su fekkoon nga xam ni yàlla àllaaxira amul yàlla dina liggéeyee àddina bi beneen façon ndax kon yàlla wax na ci yonent bi ni ko tabaaraka lesi inchaa aja laka xayran min zalika jannatin ji min taxtiha al anhaaru way ca laka xusuuran su ma neexoon fii ci àdduna bi moo sotti la alal judul jeex defal la fi ay pale waaye wala laaxiratu xayrun laka mina lula alaaxira ba ngeen jëm moo gën fuuf pale yi àdduna yi wala yu deme noonu moo tax jullit yi ñoom yàlla da di nattu wa nabluukum bi charri wal xayri fitnatan yàlla nee na dama leen jox euh, ñi nga xam ni ñoo am alal alal ji nattu la ci ñoom ñi nga xam ni dañoo ñàkk ñàkk gi nattu la ci ñoom ñaam alal nan la alal ji nekkee nattu ci ñoom nattu buñ koy wax mooy comme genre examen puisque alal dafa sax ci xol léegi nag alal ji sax ci xol imaan itam ci xol la ne yàlla day nattu xolu jullit bi ba xam gëm googu mu wax bëgg alal bi dina ko yóbbe ci euh, dominer gëm yàlla gi walla déet ndax yàlla sax nee na ci wal faji wa tuhibbuunal maala xubban jaman yéen ñu bëgg alal ngeen bëgg goo xam ni gu jéggi dayo la waaye loo bëgg-bëgg alal nga xam ni lii farata yàlla la yàllaa ko dogal ci yow te nga ni jullit nga ñaar ñooñu dañuy xëccoo ci xolu ki am su ko defee nag léegi finalement bëgg imaan bi mooy domine mooy tax mu génne asaka waa su ko defee asaka ñu xam ni farata la bokkul ak yow lu lu ngay def rek lu baax di dimbalee walla yu demee noonu waaye lii obligation la boo xam ni da ko war a def tëkku bi bari na ci bari na ci alquran waaye aay bi nga xam ni suuratu tawba yàlla mi ngi wax ni wallazina yaknizuuna zahaba wal fiddata wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim ñi nga xam ni dañuy théoriser thésauriser la xam nga alal jël wurus ak xaalis di ndàmb di denc rek walla borom compte banque yi walla yu demee noonu nga am rek alal ju bari denc rek waaye doo ko dépenser ci yoonu yàlla te mooy génn ci asaka def ci lu baax yàlla nii ñooñu nag leen annoncé xamal leen ni mbugal mu mag mi ngi leen di xaar bis ba xam kon yàlla tëkku ne ci Euh, bu baax a baax comme ni mu tëkkoo ci ñi nga xam ni ñoo bàyyi julli wala ñuy sàggane julli tëggu na ci ci ci ci loolu waaw. tabaarakallah lislaam moom diina ju organisé la ba nga xam ni ni mu tërale su fekkoon nit ñi dégg nañ ko di ko defee comme ni nga xam ni noon la ko tërale kon yaakaar naa ni benn problème do am xam nga fi mu ne nii ñi ngi wax ni petorol euh, kii gaas am na. pétrole am na fi ak yu deme noonu ci tëralinu lislaam gaz boobu pétrole boobu ak yi nga xam ni yëpp ñooy ay sources yiy génne moo xam or la wala lu mu mën a doon dañ ci lislaam tëral na ni dañ ci war a génne asaka asaka jooju ñu di ko jox ñi nga xam ne ñi ñoo ko mëritoo ñooñu itam ñu nekk juróom-ñetti catégorie lislaam tudd na leen ci lislaam kon lépp loo xam ni ressource la boo xam ne bii day génn muy pétrole muy gaas dama jële la sax euh, commerçant yeeg yooyu waaj bépp alal juy génn xam nga asaka am na fu ñu koy jëlee am na ñoo xam ne ñi lislaam moo leen siibale mooy ñiy bay mooy juri jur euh, jur gi mooy xeetu or ak xaalis ak yu demee noonu waaye xam nga modernité dafa am léegi gaz am na pétrole am na bu fekkoon ñi nga xam ne ñi dañuy topp jàngale lislaam gaz boobu dañoo war a génnee asaka ji génne kii bi ñu xool nuñ koy defee moo xam nuñ koy dim seet ndax bu fekkoon sax ñun dañoo nekk ci quartier mi ngi mel ni fii man jàpp naa ni maire yi ci ñoom la ñu waroon a gën a jaarale affaire u asaka puisque maire bu ne ngi mel ni ñun fii ñu nekk Castor Jëppal maireu Castor dama joxe rek exemple maireu Castor Jëppal bi bu fekkoon ci lislaam la moom danañ ko chargé xam na ñu fi nekk ñëpp di ay borom alal di ay commerçant ak yu demee noonu ñu recensé leen mais en même temps dinañu recensé ñi nga xam ne ñi ñu ñàkk lañu ñi seen borom kër wàññeeku ñi nga xam ni dañoo yoon njaboot mënuñu leen a dimbali ñu recenser ñëpp buutal leen ay carte ñuy koy prélever ci ñi nga xam ne ñi ñooy ñoo am alal fii ñu di ko jox ñi ñàkk ñoo ñu ñàkk ñu jox leen ay carte bu weer dee ñu dem ku ci am ñaari doom wala ñetti doom yaay ëppale ki am benn doom l'islam loolu yëpp am na organisation boobu léegi yow mi nga xam ne sax yaa doon chômer amoo loo dimbandikoo danañ la jàppale waaye bis boo xamee ni am nga commencé nga liggéey da ngaa war a dem ca mairie ba annoncé ni ah man léegi am naa liggéey ko defee du waratoo jël lool waaye soo ko nëbbee sax de defoo ko nga nga dem di ko prélever te amuloo nga dem di jël loola te amoo ci droit bu ñu ko yëgee daañu la poursuivre nga euh, delloo alal jooju nga jëloon te fekk euh, moom la ko xam nga loolu yëpp jamono Umar ibnu Xattaab genre organisation boobu la ñu organiser woon l'islam xam nga loolu maire yëpp suñ ko doon def nga xam ni nag léeg-léeg mu am maire yoo xam ni xëy na ressources yi ñuy jël euh, taxu ko am solo bu boobaa pétrole bi gaz bi ressources yi ñu am port bi liy génn port ak ñu demee noonu état bi mooy dimbali maire yooyu ci pauvre yooyu nekk seen gox ñoom itam moo tax ma ni l'islam moom diine ju euh, organisé la ndax mu ngi wax sax si suuratul hashri ni kay laa yekkuuna duulatan baynal axniyaa i ma alal ji warul nekk rek loo xam ni borom alal yi ñoo koy yor di ko wecci konte ci seen biir rek fii dangay gis alal ji fi mu war a jaar duñ ko fa jaarale maanaam yàlla nee na nit ñi yàq bi ñuy yàq dafa bari que yàq mooy nga am alal waaye fi ko war a euh, dépenser doo ko fa dépenser nga di ko dépenser feneen foo xam ne fii du foofu nga ko war a dépenser moo tax yàlla di wax ni ba wala tu bazir tabziran innal na kaanu ixwaana shayatini na ngeen bàyyi di yàq di tasaare alal ji ndax yàqkat yi dañuy mujj sax nekk mbokku seytaane te bu tànk yaa ngi dépensé waaye li ngay dépensé da nga koy dépensé fi nga ko war a de jox puisque yaa ci suratu baqara yes aloona ko maasa yunfiquuna ñi ngi dinañ la laaj ci fan la ñu war a dépensé alal qul ma anfaqtum min xayrin lépp lu ngeen di dépenser ci lu baax falil waaliday ni na ngeen ci jiital seeni wayjur wal na mbokk yi leen gën a jege al aw la bala nga boo amee mbokk moo xam ni yéen a bokk ndey wala ngeen bokk bàyyi wala yu demee noonu nga tane ko ci alal balaa ngay dimbali beneen jàmbur bu la gën a euh, sori tàmbaleel ci kooku falil waalidayni wal aqrabin waaye wal ba ci dëkkandoo bu la gën a jege ak bu gën a sori mu ni nag wal yataama or orphelin yi wal masaakin yi ak miskin yi loolu moom nga war a jiital tànk yaa ngi def loolu boobaa kenn du ko tuddee yàq waaye fii dangay gis benn soirée nga jël cinq cent mille wala yu demee noonu <laughs> dépassé ko ci yu kenn xamul fekk booba am na ku nekk ci sa wet koo xam ni reerul walla añul wala yu demee noonu wala mi ngi am projet sax xale yi boo gisee ñuy dem sax ci mbëkk mi ak yu demee na man dama jàpp ne sax dañ leen a dimbaliwul wala organisation bi lislaam waxoon euh, ni mu ko tërale toppewuñ ko noonu waaye bu wóor na ni bu fekkoon ni lislaam tërale defe nañ ko noonu maire yi ñu def maire bu nekk nga recensé xale yi nekk sa gox ñi ci am ay projet ñi orphelin yi jigéen ñi amul bërëm kër et cetera ñu jël ressources yi nekk foofa nga xam ni borom alal yi nekk foofu ñëw ko génne ñu delloowaat ko ca foofa yaakaar naa ni xale yi duñu dem sax ci mbëkk meeg yu demee noonu daal alhamdulilah waa évidence ak ñi mel ni ñoom ñëpp dañ leen war a ñaanal ndax ñoom dañuy tasaare euh, message su yonent bi njàngale yonent bi te yonent bi moo ni balliqu ni walaw aaya dee leen ma jotalal donte sax benn aaya la ku jàng benn aaya xam ko mokkal ko xam nga fii léegi defe naa ni xam nañu ko ci portable yi da gis ku wax dara ni nang ma ko partageel wala nang ko jàllale li ñu war a gën a jàllale nag mooy message su yonent bi ak li yàlla wax te loolu nag yéen waa évidence ci ci ci loolu ngeen ne parce que wóor na ni lii ñuy wax ni bu ngeen ko jàllalee jàllale ngeen message su yonent bi jàll te yonent bi yàlla la fi nekkal moonte moom moo fi nekkal xeet wi ndax moom mooy baayu xeet wi yépp waa kon képp koo xam ne yaa ngi jàllale message su yonent bi rek dugg nga ci ñaan googule ko ci ngi leen di ñaanal ci barke yonent bi yal yàlla defal leen développement bu rëy rëy rëy rëy ba fu télévision yu mag yi am ci àdduna bi am yéen ngeen àgg fa ba weesu ko